أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه bokki fondation taala anhu seen mbokkum taalibe seen xarit seen soppe Abdul Xaadir Ngom moo del siwaat di leen nuyu sëriñ daara di leen jaajëfal bu baax fa tabarakallahu di ziyaar ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku ci ñaan ñëpp di ñaan yàlla yàlla yàlla dolli ñu jàmm sàkku it ñun ñëpp di ñaan ci réew mi nuñ koy waxe ci suñu dar si yëpp jàll Sénégal yàlla na ko yàlla tànnal ki gën ci Sénégal te gën ci ñun yàlla nañ ko yàlla tànnal yàlla moo ko xam ñun xamuñu ko kibaax suñu borom moo ko xam waaye ñun xamuñu ko kon fa tabarakallahu axsanul xaalixiina ñu bàyyi xel di ñaan ci réew mi dañuy ñaan jàmm ci réew incha allahu di nuyu ñëpp nag ña ca youtube ba fële duñu seetaan ca Cinevision TV wala fële ca seen ba nga xamante ni maam alxaaji rawaxaan jéey moo koy yore ca France moom it ñu ngi ci ziar mbokk ya fa nekk yëpp bàyyiwuñu kenn macha allah di jaajëfalit mbokk yi nga xamante ni seenuk mbaax moo tax demee ba téere bi di waaj a jeex ah. ñu jël seen àllarba di ñu koy yónnee ni ñu ko bi nga tàmbalee dars yi ba léegi wax dëgg yàlla ma ni ah ñun de kilifa yooyu ñu ko sant sañu ñu ci ni nangam nangam sañu ñu ci ni dara kon ñoom ñoo def seen seenuk mbaax ni daal dañuy yëg ni ah ñu ngi jàng téere ba téere baa ngi waaj a jeex daal ñu jël seeni dara dañu ko yónnee ni seen àllarba la ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla wax dëgg yàlla tey jii kon mu tombeek di ñaar fukki fan ak juróom benn muy le 26 janvier atum 2024 ñu fas yéene delsi rek ci suñu bindu muqaddimatul azia bu ngeen xoolee page 250 di ngeen gis ni kon xaatimatun mooy mooy dernière bunt bi ci li nga xamante ni moom moo war a mottali téere biñ doon jàng na yàlla defal ñu ci xeewal ñun ñi koy nab nabi yàlla bindal ñu ci tuyaaba yéen ñi ànd ak ñun di ñu déglu yàlla ñu yàlla boole bindal tuyaaba wax dëgg yàlla alhamdulilah téere bi biñ ko tàmbali léegi bañ ko yàkkamti ma ngi bëgg def ay at su ma juumul 2019 lañ ko tàmbali woon alhamdulilahi rabbil alamin ba tey ji ñu nekk ci 2024 kon suñu borom dogal na ñu ci jeexal bi incha allah xam naa ne àjjuma bii di ñëw ci kàttanu téere bi moom dina jeex incha allah bu ko defee rek ñu bàyyi ak kilifa yi suñu ne ñu jël leen leneen it waaw ñu daal di jël leneen rek ñu continuer incha allah di ci fàttalente kon di ngeen gis foofu mooy xaatimatun lii kat ak mottali la mu ne yambaxi dina yeel lil insaani ñeel doomu aadama bi an laa yuraamu bañ a gis lenn lenn ci àdduna illa xasala lu dul li nga li mu xamante ne làq na ko xasanatun muy aw yiw li ma ngir delluwaayam ndeysaan moom daal booy kërti kërti di sonn ci àdduna mbokk del fexe ba di ci bàyyi xel ëllëg ndax ëllëg kët olof yi dañ doon wax naan du añ du reer waaye mat naa sédd kon lépp looy yëngatu ci àdduna kàddu gooy wax koy dimbali looy def ca àdduna bàyyi ci xel lu la ci yàlla di fay ëllëg pour boo demee ci sa delluwaay ba nga fekk ko fa muy benn li doomu aadama war kërti kërti ñaareel ba mooy aw dirhaman walla dërëm boo xamante ni li maashihi ngir dundam la ndeysaan dañuy wax ni képp koo xamante ni xëy na ba suba génn sa kër ni yaa ngi wuti nga wër ba ngoon amuloo xam-xam boo yokkoo ci sa wàllu àdduna beneen bi ci topp mooy wutuloo dara loo dugal ci sa bàmmeel pour ëllëg beneen bi ci des mooy amoo benn dërëm bu lew boo indi sa kër boo leen mën a jox dañuy wax ni kuy xëy di tarsu ba ngoon yow waajooj yow yaa gën a tarsu ñëpp ndax nit warta xëy suba ba ngoon di kërti kërti ba ngoon te ñett yooyu amu ci benn xëy yokkuwuloo ci wàllu xam-xam amuloo dërëm boo yóbbu sa kër nga nattit bi nga tëddee suba ba ngoon amul dara loo xamante ni def nga sa digganteek sa borom muy lu rafet loo xam ni yaakaar nga ni dawal nga ko ci sa bàmmeel mbokk kuy sonn ca àdduna rek yooyu moo la war a tax a sonn dem fàggu ju lu lew kulu min ma tayyibaati maa razaqnaakum suñu borom wax na ko waxaat na yaa ayyuha rasulu kulu min a tayyibaati wa amalu saalihan seetal yi fexe ba dërëm bi ngay lekk mu doon dërëm bu lew xam nga dafa bokk gis ngeen bu ngeen gisee sax nangu ñaan xaw a tumuranke nangu ñaan gu nangu lu tax mu xaw a tumuranke yenn saa yi nga gis mbooloo mu bari toog di ñaan ñaan ba sonn ñaan ga nanguwul mbooloo mooma daanaka boo leen xoolee ñëpp lu lewul ak ko leen suñu mag ñi léegi suñu mag ñi rek nga xamante ni ñoom daara daara dara daawul rax seenu lekk lu dul loo xamante ne xam nañu fu mu jóge yeneen bi wax na ko nee na naka la nit ki di toog yow sa kër gi nga dëkk dafa xaram parce que alali jaamur alali réew mi nga lekk wala alali jaamur nga triande sa mbubb mi ngay sol nii lewul hmm? sa oto bii ngay dawal lewul sa li ngay def ci sa biir bi lewul yonent bi nee na nga wëlbatiku tàllal say loxo naan yaa allah yaa allah yaa allah bi nee na fa kayfa yustajaabu la waa jooju nan la ko yàlla di wuyoo tam war a delloo ay ak jàmbur ba pare yàlla dala naan déedéet bala nga ma naan allah kañ dellool àq jàmbur yi jàmbur yi ba pare ba sell sama digganteek yow nag boo mu ne yaa allah ma ni puusal sama digganteeg sama jaam bi ne la loo wax nga ni nangam laa wax yàlla ni la am waaye nag bu loolu amul mbokk kon nga fexe bu wut dërëm bu dal bu boo fa jógee wa yatruku maa laa yaani yonent bi sallallahu nee na min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaani yonent bi nee na bokk na ci li rafetal lislaamu waa jii mooy lu la amalul njariñ nga teg ko fa ndeysaan seet leen rek ñun yi ñu amalul njariñ ñu di ci nekk bés bu jot fi mu nekk nii Sénégal di nga gis koo xam ne temps yi bureau yi doxul commercant yi da dugg buti boutique jàmbur fekk ma nga toog fële xam nga lu muy weranteem politique xam nga lu muy werante coupe d'Afrique ba tax la nga taluloo julli taluloo sa liggéey taluloo dara yaa nga fële naan wel wel wel wel te gis nga li ngay wax kat am na ci genn wàllu goo xamante ni ñoo góor a jaam ñoo ñoo ma góor a jaañe yam daara la ñu xamul ci actualité waaye wax rek yonent bi nee lépp loo xamante ni sallallahu alayhi wa bokk na ci rafetal lislaamu cem si lépp loo xamante ni sa yoon nekku ci nga ba ko fax ay buñ ko defoon tarkuhu ma la yaani bu fa jógee weex tari su muy wattandiku mi nafsihi ci boppam ni tekk balaa la kenn yóbbaale ci lu naqariwul ci dégg nga ci lu neexul yàlla lu riir mi bari bari bari bari bari bari bari nga ni tekk waaw ndax léegi jamono nag dafa lëndëm seen maam alaaji rawaan ca ay jamonoom mos na woote woote bu rëy sama maam moo ma ko nettali nee na ñëpp ñëw dëkk bi fees dell ñu defe lu leen di wax mu leen eh àddina bii ñu tollu day làmb ju tas la làmb ju toj la làmb ju tojam xam nga nu ngeen di defam ku ne da ngay këf say daal wut noo rawale sa bakken ni foofu lañ toll ci àdduna xool leen ba mu koy wax ak tey tey jii nag la làmb ji doog a toj nag defe naa nag tey jii nag la làmb ji doog a kon kenn ku ci nekk ngay wattandiku sa bopp ba nga xamante ni balaa la kenn dugal ci erreur xool leen léegi ni mu yombe wax loola fi mu nekk nii élection yaa ngi ñëw daa ñu wax loo kilifa erreur def loola erreur wax loola naka sudul noonu nga wax ko ñu ngàbb la nga jaara fe nag sa sa der yàqu ba faw dootul baaxati beneen bi mooy boo yàqi fa muy taxawe indama ashkala lépp lu lënt ci yow leerul bul ci dugg waaw yonent bi neen alxalaalu bayyinun walxaraamu bayyinun wa baynahuma mushtabiha lu leer lu lu araam nee na nañ lu dagan nee na nañ am na nag yu nekk ci diggante bi yoo xamante ni yu lënt la xam nga loo ciy def ne ci tekk laaj ci la ci ëpp xam-xam bu ko defee wayam si fi jëli ngay fexe ba seet ñi ngay ñi ngay ñi ngay àndal ñana ngay nga nga nga tànn leen bañ a def koo jot rek ànd ak moom wayam si fu jëli saxu bu ko defee wayalinu muy noo yëllahu jaanibahu wàllam foofu la ñuy teg suñu tànk foofu la ñuy teg suñu loxo teg suñu baaraam incha allah ba àjjuma bii di ñëw rek bu ko defee ñu yeggale téere bi incha allah bu ci xajee ki nekkoon ci darse bi moo doon seen mbokk seen xarit Abdul Qadir Ngom nekk fii ci daara maam Alaaji Rawaan Ngom Nuurul Huda ñu ngi leen di fàttali fay koor yi ku ci amee woon bor wala sa njaboot am ci bor taxaw ci fexe mu fay ko incha allahu wa daynullahi axaqu an yuqda bor yëpp biñ ci war a fay bor yàlla moo ci